maam bu sa jaara ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta maam maaram teen bi da moom cosaan la moom ci mooy teenu soxna Jaara Buso fii la daan roote bu njëkk bi ko maam soxna maam Mawar Anta Sali laa ndox daal ak musóoram la jël rek yor noonu ci biir teen bi su déggee nit daal la ne kooku da jaara la mu takk ak ak ak musóor lañu takk génne ko duy fi lu gaaw mu duy fi sata la dem jox joxab sangam mu dem waajal tu waxtu julli ji tisbaar ak takkusaan muy teen boo xam ne teen cosaan la daal ndoxam barkeelu ndox mi daanaka moo ndoxam ay noor xamante ñoo ak ndoxam màkka ma ñoo ñoo yem sam-sam ku ko am daal am nga ndoxam sam-sam ku ko am itam am nga ndoxam ay noor xamante te it fépp waaye di jëfandikoo it lay nekk foo xam ne fu ah, bu mu am sobe te lépp ci waaye saafara itam lu ci waay bëgg a saafara itam dana saafarawu. teen bi dañ ah, ci xam ci histoire mooy rek ni teen la boo xam ni teenu barkeelu la waaye ki tax tamit ñu ci barkeelu mooy Soxna Jaara ndax Soxna Jaara tamit dañuy wax ni moom fi la fekkoon teen bi. déedéet moom teen fi fekkoon ndax li waral loolu mooy. Euh, ñoom li leen andi fii du ñu maanaam danoo taamu Porokhane di dëkk fi dëkkoon ca Bawal te fa ñu wax Xuru Mbàkke waaye nag Maba Jaxu Ba amoon xare boo xam ne ñam ci notoon danoo bari lool mu ragaloon ne bu demee Saalum bàyyi leen fi ñooña mën na noo fayu ci sëriñ sa mooy woote Maba boobee daal di woote nag woo sëriñ sëpp ni leen nañu ñëw Saalum dëkk si ak moom mu aar leen ngir seen diine waaye Maba ba mu ñëwee dafa dal ci Nioro sëriñ si nga xam ne ay kilifa diine leen woon ñun ñëpp danoo daan Nioro kenn ku nekk dal fenn am na ñoo xam ne ñu ngi daloon Paos Kuta am ñoo xam ne ñu ngi dal ci dëkk yi dëkk dëkkaan waaye soo sëñ Mamour Anta ñëw tànn fii di Porokhane kon fekk na ko fi daal fii dal kon moo tax mu fekk fi teen bi soxna si nekk fi ak waa këram di fi liggéeyal wàcc fi am liggéey ñu denc ko fee tey nga xam ne tey fee ñu ko denc ay armée la woon. loo ci fas rek da nga ko am daal te bëgg yi kay ko yóbbu boo xam ne maanaam fu am sobe loolu leen ah, si nag kon ci sa ci teen boobu ci la sañ a root ci la sañ a jëfandikoo ndax moom la fekk te moomu dëkk bi waaye nag root googu mu root moo ko barkeel ba tax tey ñi di ko dabu. nit ñi sax ñaare am na lu bari loo xam des na ko danañ ko jaawale ci teen bi di ko wax ci teen di ko nett soxna jaara waaye loolu ci Xuru lay amee. ndax ñaare dana faral di dégg am ñu daa daan woon ci teen baag daa defoon ni histoire daal waaye loolu lépp am na waaye amiwut fii ndax fii moom dañuy wax ni soxna jaara sax at mi matu a moom fu mu toll rek nu mu gudd rek day gën yokk waaye du kii fekk fekk maa ngi gii di jeex moom toujours ci rang bi lañ rang bi dem na ba buntu kër Sëriñ bi daal am nañu yéen itam du yóbbu ndox mi wax dëgg yàlla muy daal teenu barkeel boo xam ne euh, suñu borom daal moom barkeel la ndax euh, dama koy faral di wax ni xëy na mën naa am nag ci yeneen barab waaye man dégguma ko gisaguma ko mooy ni ndox man daa barkeelum ndox ci ñetti barab laa koy gis mooy ñi nga xam ne dañuy aj ci fa yonente bi alayhi salaam nekk mooy ndoxam sam-sam ku fa dem danañ la ko yóbbante waaye mel na ne tey fii ku fi ñëw danañ la yóbbante ndoxum Porokhane mel na ne tamit ku dem Touba danañ la yónnee danañ la yóbbante ndoxum Aynu Rahmati ñetti ndox yooyu nag laa gisagun ci nu koy yónnee di ci barke bi. fi ñëw naa nga ñëw gab yar. nekk fee kab yar di jëfandikoo loo xam ne na moom la soxna si bëgg moom la borom dëkk bi bëgg itam di soxla di Sëñ Muntaxa waaw ab yar daal ak ak taalibe moom rek lañ fi sàkku moom la fi bëgg itam te képp ku ko wénti itam lépp loo fi ñaan yàlla na ko yàlla soxna jaara nangu kuy ñëw na matale farata yee mooy fii moom daanaka barabu siyaar yi bariwut ndax Porokhane moom dañ naan la daanaka bu ñëwee ci barab bi siyaar soxna si soo mënee ñëw ci teen bi barkeelu ci ndox mi boo amee ab sëriñ mën nga ko siyaare boo ko mën ngaa dem sa dal tëdd yéen ñi lay waxat yëpp nan la ay xalangu baag ay bojjeg loolu lépp ay nit ko fabriqué rek daanaka fi ne boo gisee sax amatu amatul sax fi ko daan defee ngi nii sax waaye jëlee nañ ko fi yooyu yëpp bokkul ci asaar bambu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta mamaram